mbokki jullit ñi ñu ngi képp kenn ci jotaay bi di jiital kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi nuyoo boo xam ne mu ngi tukkee ci ñun waaye tukkee ci pay ba lépp tukkee ci kilifa yi ñu ànd ak muy Cheikh Aboubacar Niass ibni Cheikh Ibrahim ak doomam Cheikh Ibrahim ibni Cheikh Mouhamadul Amin ak rakkam sëriñ Zeynal Abidin que maam Alaaji Ñas ak seen baay Seydi Mouhamadou Bachir suñu nijaay ñu ngi leen di nuyu di jël nuyoo yi mbooloo moomu yëpp di ko jébbal xalifa imaam Ahmed Ba di ko nuyu nuyoo boo xam ne daf ñu koy jottalil waa mairie bii waaye ak te imma yi nga xam ne nii ñoo ŋànk diine ji ci gox bi di nuyu chérif bi nga xam ne mu ngi ànd ak moom di ndokkeel suñu bopp di ndokkeel mbokk yëpp di ndokkeel Cheikh Ndaw di ndokkeel baayam waaye di ndokkeel tim imaam Cheikh Konte ak mboolem muqaddam yi nga xam ne nii ñoo teew ndax liggéey bi ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñu ndokkeel Cheikh Taye Sall Moustapha sant yàlla ci jëf ju màgg ji nga xam ne moom lañ tàmbali tey nga xam ne ku gëm yàlla moo koy itteewoo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 yàlla bu waxee asa yàlla dara kóor a ko ba bu waxee asa mu mel ni ku óoluwut li muy wax waaye beneen yar daf cee nekk pour jaam jaam bi lu jëfam rafet rafet rek na sukkandiku ci mbaax ak yàlla ñu ngi yaakaar mbaax ak yàlla googu nga xam ne moo yombal tàmbali gi di yaakaar mbaaxam ci diri sembaanam ci liggéey bi ba ba muy matee ak bañ koy dundalee ci li nga xam ne moom la yàlla wax ne moo tax ñi war a ci néeg yàlla yi fii buyutin adina allahu an turfaa wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bilgudu wal asali rijalun la tulihim tijaratun wala bayun an zikrillahi wa iqami salati wa itai zakati yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulub wal absar liyajziyahum allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yashaau bi gayri xisaab la ca yàlla jeexalee yarzuqu man yashaau bi gayri xisaab loolu lañ yaakaaral kuy yëkkati néegi yàlla yi ngir lan wa yuzkara fiha ismuhu tabax néegi yàlla ngir ña fay tudd yàlla ay góor yoo xam ne jënd ak jaay du leen fàtteloo yàlla ñoo fay tudd yàlla suba ngoon kon nga xam ne jumaa yi dëgg dëgg tudd yàlla moo ko tax a jóg danañ julli julli tudd yàlla la waaye buñ ci àggee bokk ci ñi nga xam ne yàlla may na leen ñi buuxante ci naafilaay xiw ñooñu seen juma du am rek julli mu jeex waaye dañuy julli di zikkar waaye dañuy jàng di jàngale ndax jumaa yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon daara ji moo doon lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci jumaa ja fekk nit ñi ngi jaamu yàlla ñii ngi jàng ñii ngi tudd yàlla mu tànn sax jotaay bi nga xam ne ñoom ñooy jàng ne innama bu'istu mu'alliman yàlla daf maa yónni pour may nekk jàngalekat jumaa ji nag xam nañ ne jumaa la waaye jàngukaay la ñu ngi bëggal li nga xam ne nii ñoo koy ittewoo ñi ngi bëggal ñi nga xam ne tim ñoo yombal barab bi ba mën a am ñi ngi bëggal ñi nga xam ne tim ñoo fas yéene liggéey ko te ñi ngi oo ñëpp tim ne nañ ci ñëw indi ci seen ndimbal jàppalante ak jumaa ji ba mel ni bëgg ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fi jannati keneen mu ne man bana lillahi masjidan yuzkaru fi ismullah bana allahu lahu baytan fil jannati keneen mu ne man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha allah bana allahu lahu baytan fil jannati beneen xadis mu ne man bana lillahi masjidan walaw ka mibxati qataatin bana allahu lahu baytan fil jannati ku bën tabaxal yàlla nekk yàlla tabaxal ko nekk ko moom ci àjjana ku tabaxal yàlla néeg ngir yàlla yàlla tabaxal ko nekk ko moom ci àjjana ku tabaxal yàlla néeg bu ñu tuddee yàlla yàlla tabaxal ko nekk ko moom ci àjjana ku tabaxal yàlla néeg bu em ni gàmbab ci purip ci puripu picc mu tuuti la ku nekk xamu ne na gàmb ci puripu matut néeg matut jumaa waaye bu fekkee ne yontu wax na ne ku tabaxal yàlla néeg donte dafa em ni gamba ci puripu tuuti ba mel ni néega picc boobu sax yàlla tabaxal la néeg ci arjanna néeg ci arjanna na nag la asiyatu ñaanoon rabbi ibni li indaka baytan fil jannati la waxoon yàlla yàlla na nga ma tabaxal néeg fa yaw ci àjjana bàyyi mu ne néeg fa yow boobu nga xam nu mu neexee mooy boo demee ba sa xol bi dara nekk ci lu may yàlla ba neex boobu ngay nekkee néeg bu la yàlla tabaxal ci na noonu lay mel te ku bokk ku tabax jumaa am nga loolu waaye ku bokk ci tabax jumaa am nga loolu ndax man damay wax ne donte néeg bi béyti néegam ci purifu la tolloo loolu mooy ne ku def ci jumaa loo xam ne mat na néegam ci purifu rek mën nga cee amee néeg ba moom ce yàlla jaan àjjana ñu yàlla yal na yàlla may ko képp kenn ci ñun yal na yàlla matal néeg bi ni ñëwee tey sos ko ñi ngi ñaan yàlla ñu ñëw beneen bés boo xam ne dañ koy ubbi mu bokk ci jumaa yi nga xam ne jumaa yi moo naana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu te jumaa am yi mooy jumaa yi jullit ñëpp ñoo ko bokk waaye daf doon ñaan yàlla ne yàlla yàlla na nga bëril ci àddina bi yëpp yàlla nga ci bëril samay jumaa yi kon ñaan googu la ñuy dox pour bokk ci ñi loolu di feeñ ci ñoom ñaan gi am na ba pare góor góorgóorlu ba bokk ci ñi yàlla di feeñal loolu ci yow mooy itte gu mel noonu moo tax Cheikh Ibrahima Ndaw ñu koy ndokkeel di ko wax ilal amaam di ooy mbokki muqaddam yëpp ñoom ñëpp ñu góorgóorlu góorgóorlu ci lef bi ndax dëgg-dëgg jumaa yi nga xam ne bu taxawee ci dëkk booleeg jàngale jàngale sunnatu muhammadin sallallahu taxawal julli taxawal naafila julli di zikkar di wazifa bi nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu wax na loo xam ne mu ko jëlee ci jig ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wazifa dafay garanté gox buñ koy jàngee lépp lépp daf leen di garante di leen wëccu ma ne kon dëkk yi nga xam ne ñi ngi buñu jaamu buñ xamoon loolu fuñ fekk ku tàmbali jumaa joo xam ne zaawiya la rek dañ la dimbale pour ñu mat kon ñi ngi nuyu monsieur le maire waaye ñi ngi koy gërëm ci acte bi nga xam nga xam ne bu ko defee fépp eh, eh, cheikhul islam la ko defal ñi ngi koy ñaanal waaye di ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom ci liggéey bi ndax liggéey bu mag benn nit mënu koo def kon yéen ñëpp seen effort feeñ na ci pour lii mën a am ñi ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla eh, itte yi nga xam ne juñu ngeen ko mu ngi ci jublu yàlla ko ci yàlla dimbale te bu ko jotee tim yàlla dimbale ko ba man a dimbale askan bi ci li nga xam ne moom lañ ko doon Mokhtar ñu ngi gërëm xalifa euh, euh, nga xam ne moom it lii bu amee yaatu dënnam la xam na ne lépp benn la liggéey bi benn la jullit ñi ñoom ak ñoo ay mbokk masalul muminina fii tawaatuhum wa taraaxumihim kama salil jasadi lwaahidi ida shtakaa minhu udwun tadaa lahu saairul jasadi bisahari wal xumma loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu lañ dëggal ñoom ak imaam yi fi nekk yëpp ñoom ñëpp ñu ñëw pour wane ne barab bii suñ barab la jumaa yi benn la ci jumaa yi nga xam ne ni moo nekk fii bu ñëwee daf ñuy dimbale ci liggéey bi dafay gën a yaatal liggéey bi dafay gën a feeñal kaweeg diine lislaam dafay gën a feeñal màgg lislaam dafay gëna a réew réewi senegal ndax barab yi jaamoo yàlla nu mu a bëree sell gën a bëri garab barab yi ñuy jaam jàngee ni mu gën a bëree xam-xam gën a bëri réer gën sori nit ñi gën a nitee gën a jaar ci yoon أغلق والغار سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل أمسك وبالله العظيم سبحان والسلام